ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di leen bëggee yéen ñëpp nag euh, di wax ci organisation bi nga xam ni f ñoo ko organiser woon ñu waroon koo def tey nga xam ni ci information yin jot début bi ñoom autorisé nañ. marché bi ñu dem ba ci biir ni marché bi kat autorisé yutuñ ko kenn amatul droit def doxu ñaxtu loolu nag ñun ñu war cee am ay taxaw seetlu ñun sénégalais yi nga xam ni yépp yi nga xam ni réew mi fii mu toll ñor nañu def nañ yitte développement réew mi def nañ yitte tolluwaayu réew mi def na ni ñi toog ci réew mi jàpp ni ñoom ñoo ko moom ñoo war di buuma ko buum bummi ñun ñooñu war nañ cee def ab taxaw seetlu ndax ñun ñii dañ leen di bàyyi ñu continuer lii chaque lundi ñu dem dugal demande manifestation bu ñu autorisé ñu manifester bu ñu autorisé wul ñu dem ñu dem suñuy kër toog ndax ñun dañuy continuer nii loolu ab laaj la boo xam ne ñun war nañ koo laajante ci suñu biir mu nekk ab taxaw seetlu boo xam ne tamit war nañ cee def ay jàngat ndax ñun ñii dañ leen di seetaan nii rek parce que li ma dégg ci ñoom caat li nu wax dun tàyyi waaw ndegam du ngeen tàyyi da cee war a tàyyi nag. parce que ndax lii da ngeen cee bëgg a continuer tey ñoom ñuy dérouler seen plan ak di ñu sànni ay yax ñuy seeñu ndax xel mën naa nangu ñu naan waaw Ousmane Sonko mu ngi waxtaan ak Macky Sall système bi nangam nangam ngeen xëy ñu ne Basirou Diomaye Faye de ñu ngay dolli ca kawam ay charge Falilou Keita mi nga xam ne waxutoon lu dul xanaa de sama frère de da ngeen koo rey laajte ab laaj la def ab laaj. comme man ma laaj ni xanaa Abdou Filbert sambu de yeen da ngeen ko ray da ngeen ko posséder da ngeen koo daggate Fallou Keita laaj ci laaj bu gëna sedd ñu ni ko rap ci kasso bi waxatun dara ñu jëlat ay chef de inculpation jëlat ko ci kaw kon yeen seen xel xel muy xel muy xalat xel muy nacc yeen buñ leen né waxtaan mu ngi am digënté Ousmane Sonko ak Macky Sall té ñun wuñ ko Sonko sakku ko ndax yeen da ngeen ko gëm té gis loolu di am te gis ñoom chaque jour ñoom ñu nekk ci seen palaa di ko dërul rek ñëw leen ñu waxante dëgg ñëw leen ñu waxante dëgg ñëw leen ñu waxante dëgg ñu nu neen la Macky Sall mu ngi ci palaam di ko dérouler di ko doxal saa bu xëyee ak ñi mu àndal loolu na leen leer na leen leer malgré Pastef amul numéro 2 amul numéro 3 amul numéro 4 amuñu plan B amuñu Z comme ni ko maître Tall waxee ñoom loolu lan gëm loolu lan teg loolu mooy seen idéologie bi nga xam ne ñoom moom la ñuy doxe amuñu plan B mal bi gere ñu ngi naan Bassirou Diomaye fay mooy numéro 2 kii diw numéro 3 numéro 4 mais ñoom nekkul loo xam ne ñoom Ousmane Sonko leen jiital ni mooy président deux mille vingt 2024 Ousmane Sonko mooy candidat Pastef mooy candidat ndaw ñi kon loolu ndax ñun. ak ñi nga xam ne tey ñoo bokk loolu ñun ñi ko bokk ndax dañuy seetaan ci ñii seen programme yooyu ñu koy doxale noonu ça bu nee manifestation sur notre man, ñu xool xool xool ba dernier jour imaginer nga double lundi mardi mercredi jeudi ba vendredi ñu door la wax ni la manifestation bi mënuñu ko autoriser ana terre ACAPES yi ñu doon kiiyee ana terre yikini bi nekk Kër Massar tey ana terre Parcelles ana terre HLM Grand Yoff ñaata place ñoo nekk ci dëkk bi yoo xam ne tey jii tey man nañ faa def marché tey il faut que ngeen di utiliser seen moyens yi il faut que ngeen di utiliser seen moyens yi bu ñuy nee dañuy def marché fii wala ñëpp tey jii F24 tey ñu ñu demande fépp tey jii ay autorisation de marche Thiès ak fépp Mbuur ak fépp mais bu leen ñëw rek def benn demande autorisation place de la nation. et puis il faut que ngeen tàmbali di def ay communication yoo xam ne tey lii nii ñoom ñuy def saa buñ ci gënee continuer dinañ toll foo xam ne day am jour boo xam ne ñu ne autorisé woon manifestation bi gerte gis fa askan ñu fees fa dell parce que ñii yëfu maa tey la ñuy def bu ngeen gisee tey place de la nation tey ni mu ko encadré tey barricade ko tëj ko tey mënoon ngeen faa tëj nit ñi noonu tey ñu taxaw tey def seen sit def seen manifestation lan moo leen di lan moo leen di rax lan mooy yàq tey seen manifestation lan mooy stabiliser dëkk bi tey lan dara du ko def seeni responsabilité yi ngeen di jël ba bu ngeen bëggul askan wi euh, manifester ngeen jël seeni barricade dem barricade foofu yëpp xool leen foofu ni mu toll tey ngeen tëj ko barricade ko ba kenn du ko jege gauche ak droite fépp ngeen tëj ko lan moo tax yéen bu manifestation yi amee bu askan wi leen autorisation mënu leen koo accepté ba pare encadré leen ak seen ay barricade lu tax bàyyi leen ay caaxaan bàyyi leen ay caaxaan te sax ci dëgg di wax nag ni ñun ndaw ñi ñun askanu Sénégal nan gën a taxaw nan gën a xam ne gis nga ñii ñu jàkkaar lool ñun ñoo mën a am détermination imposer leen suñu bëgg-bëgg bëgg bi nga xam ne tey jii nii maanaam ñun ñooy majorité ci réew mi te ñun ñoo gën a sonn ci réew mi ñun ñoo gën a ndóol ci réew mi ñun ñoo gën a torox ci réew mi lépp luy sonal doomu aadama ci réew mi ñun la ciy gën a sonal ñun néew di doole yi loolu ñun ñoo ci war a taxaw am na ci loo xam ne waratuñ ko seetaan waratuñoo nangu tey gaa yi tey jii toog fi tey tey jii di ñu xoqutal di sàcc suñu alal di ñu fen di ñu teg injustice ay ñu bari ñu ngi naan ay ay feenee Maroc ay tremblement de terre ñun li am Sénégal moo gën a garaaw la am Maroc Maroc yàllaa leen natt ñun nag ay doomu aadamaanu nattu trembler ci suñu kaw di sàcc suñu alal di ñu fen guddeeg bëccëg jël justice bi def ko seen paaka bàyyi ku leen neex ñu cuuj la ci affaire yi dëmm rek la ñuy def ci dëkk bi yéen li nekk Sénégal yéen da ngeen lijjanti kenn ku teg injustice da ngeen lijjanti kenn ku nekk ci ay jafe-jafe li leen yéen yéen li dal ci ay jafe-jafe li leen dal ci ay nattu li leen dal ci ay mitit yoo xam ne ay nit leen ko teg chaque jour ngeen naan Mali fee Kémisaba fee diw fee Algérie fee Tunisie fee yu ñàkk fayda te yéen ci torox taage nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne maara day taale sànq laa gis benn vidéo tuuba la xawma ñu ne waa ji daa sàcc mais li tax mu raw ndoxum taw mee tax kenn mënu koo dàq ba raw fan ni def nañ fa quarante cinq milliards pour assainir ko sëñ Muntaxa ngay jël cent millions di ko den jàppale ji waa Maroc ah pendant ce temps demal allié googu ñu ngi bëgg a dee ci ndox demal Madiyaana saa boo xëyee tey demal semeur yi tey nga gis leen tey nan fay feesee boo ko waxee nag yenn murid yi naan kii xanaa dafa dof ah xalifa général de murid am xalaat am yéenam def ciy ñëw nangam nangam yéenam jooja defu ko tey jii nii maanaam ngir intere jenn ju judul intérêt yi màggal gi ay délégation buuru Maroc yi kenn xamul di fa ñëw loolooy dëgg loolooy dëgg looluy dëgg loolu dong la ñuy conserver privilège yooyu dong la ñuy conserver gàmm yooyu ak màggal yooyu nga xam ne tey dinañ ko woote tas ko ci diine te jotewut ak diine dara bàyyi leen ay caaxaan ñun kenn mënuñoo tere wax dëgg kenn mënuñoo xoqatal ba leen yëg ci réew mi duñ ko wax loolooy dëgg tey man bi ma gisee euh, bërki démb vidéo yi am fee ne Madiana tey jeunes yi tey nan taxawee bàyyi peele tey borom sareet yi taximaan yi ñëpp tey nga gis leen foofu tey ci garage bi ay milliers de personnes yoo xam ne tey maa ngi dégg waa koy kii mu ngi naan billahi damay làqatu rek di ko filmer mais lii nii chaque jour nag nii leen fii mel ba midi une heure ñu xam ne tey jii kat cóol na ñu tasaaroo ji loolu mënoon nga cee liggéeyal yàlla liggéeyal ci sa maam cent million tey tey jii mënoon nga koo def ay enveloppe ah, ay millions de enveloppe laa wax cent millions yooyu tey million bu nekk tey mënoon nga koo tas tey ñaar fukki enveloppe million bu nekk mënoon nga koo tas fukki enveloppe million bu nekk mënoon nga koo tas trente enveloppe tey ci liggéeyal Seexul Xadim loo xam ne tey jii nii maara day taale maara day taale Maroc geenee lii fa am tey bu dalee fii ak ñetti at ñeenti at lee fa daanu woon dinañ ko defaraat ba ngeen di xanaa du fii moo amoon tremblement de terre parce que am nañ moyens yi am nañ xam-xam bi am nañ patriotisme bi bu nañ seen jeunesse te bëgg nañ seen bopp bu Turquie xewloo ngeen takk ay millions Maroc xewle ngeen takk ay millions corona xew la ngeen takk millions yi jox gouvernement bi ñu dammat ko ci seen i poste askan wi nekk ci ay jafe-jafe ñëw leen ñu waxante dëgg da ngeen ñoo seetaan yéen sëriñ si da ngeen ñoo seetaan sëñ Muntaxa ak ñi mu àndal dañoo seetaan Mbay Si Mansour ak ñi mu àndal dañoo seetaan Duudu Masa Yoof ak mu àndal dañoo seetaan Maayi Ñas ak ñoom ma ca Kawlax ak ñi mu àndal dañoo seetaan Ceerno Madaan ak Ceerno Basiir ak Basa Kaw ak Basa Suuf ak yéen ñëpp da ngeen ñoo seetaan borom cene ba da ngeen ñoo seetaan yéen waa Njaasaan da ngeen ñoo seetaan xiwal kitaab bi da ngeen ñoo seetaan te gàmmu gaa ngi nii di ñub si yéen ñëpp a ngi taxaw di def seeni CRD ak seeni CDD yéen a bon billaahi yéen a bon yéen a ñu yéen a torox tànge yéen a iñaan yéen a ngi mel ni sénégalais yi nekkuñu ci ay jafe-jafe ngeen nekk fi naan guddig nabi kan mooy nabi ku yonent yàlla muhammad gën gi mbindeef borom xol bu yaatu bi borom xol bu sell bi borom yërmande ju yaatu bi ah borom yitte ji nga xam ne tey jii ci kaw askan wi nga xam ne réew yi nga xam ne nekkuñu ci diine islam sax da doon yóbbu yónnee foofu ay saxaaba tey pour ñu taxawal fa dëgg ak ak yelleefu doomu aadama tey ñu ni kenn ko fi not tey yéen ngeen taxaw ne ay guddeem ngeen di wàcc di préparer ay CDD ay CRD doomu xaram yi te ñu ngi rey doomu aadama yi ci biir réew mi mënu leen cee ñëppi seen gémmiñ yi wax yéen a bon yéen a yées ñun nag loguñu pataasu ndeyi kenn sexuñu kaani kenn mëkkuñu ndey suukaru kenn yàlla lan jiital ci lii ñuy wax ak xalaat suñu biir bàmmeel moo tax dëgg gii ci réew mi Sëriñ Tuuba jaralul sunu bàmmeel Alaaji Maalik jaralul suñu bàmmeel Seydina Limaamu jaralul suñu bàmmeel Seexu Canaba jaralul suñu bàmmeel li leen yàlla digal lan la yàlla digal dañ ñoo ëpp Pastef ci kanamu sunu borom dog tax yàlla yëkkati leen ci sunu kaw ñëw leen ñu waxante dëgg te ànd taxaw Sénégal jóge ci jafe-jafe yii mu nekk ñun ñoo mën a xeex ba Sénégal jóge ci jafe-jafe yi nan bàyyi suñu jikkoy dëmm yi suñu jikkoy hypocrite yi nan ko bàyyi gémmiñ bu waxul dëgg wax fen booy malika nag ñaanduta yàlla toog fii ragal ku ko kurfañ ragal ku ko koj ragal ku ko mere ragal ku ko tëkku ragal ku ko menacé ba dëgg gi nekk ci réew mi ngeen toogal fi Serigne Touba toogal fi Seydi Hadji Malick toogal fi maam Limaamu toogal fi sama maam ma Mbay Gajaga du ngeen ko wax dama leen koy wax ba mu saf sàpp ay naa fekk ngeen ku leen ko wax ay naa fekk ngeen ku leen ko waxul ay naa fekk ngeen loolooy dëgg loolu mooy dëgg kompaloo bi ci réew mi ngeen di ba defante lu bon gi ci réew mi ngeen di baax seen masiya politique et maraboutique bi ngeen fi nekkee ngeen di baax seen jëndante bi ngeen di baax gis nga fi mu ne Amadou Ba mii ñuy wax ak alaalaatoo gi fi mu ne kër maam li limaamu dugg na fa ñu baree baree bari fi mu ne mu leen di gis xam naa ci ñu bari mais dinaa ci ñëw gis ngeen lii ngeen nekkee ndey ci dëkk bi dina dakk ci nii wala mu dakk ci naa te barki rasulaay Macky Sall kum fi mën a teg deux mille vingt quatre dinañ ko booleeg moom Dakar ndeyam sa système bi moo jeex seen système bii ngeen nekkee tey teg ko ci Seydina Limaamu moo xam ne du boobu lan jàng teg ko ci Serigne Touba boo xam ne du boobu lan jàng teg ko ci Seydi Hadji Malick yoo xam ne du boobu lan jàng maa ngi gis ay Cheikh Ahmed Cissé yéen yéen a gën a yées Cheikh Ahmed Cissé yéen li ngeen di def moo gën a yées li Cheikh Ahmed Cissé wax Cheikh Ahmed Cissé dafa wax. yéen ngeen di ko jëf te waxuma la dara yéen nan la Cheikh Ahmed Cissé mënee wax wax ju ñaaw ngeen mën a ñëw wax ne Cheikh Ahmed Cissé wax na lu ñaaw parce que vidéo bi àdduna bépp a ko seetaan ngeen ñëwaat di tegaat wax ci te ay gis sax ku tegum audio daal ne xaaral ma tegalaat leen ko ngeen déglu. yow nit ñaa ngi ko déglu nga ni moo metti xolu nit ñi nga ñëwaat du metti waatal xolu nit ñi yéen ay doomu xaram yéen a ñàkk xam-xam barke arxuraan dangeen di toroxal sax seen bopp dangeen di gis nit saaga seen ndey yow nit nan ngay saagaa sama ndey saaga woo xam ne ab man génn naa di wax ci saaga wi mais saaga wi may wax ci de bu ma xam ni waxee ñépp xam ne saaga wii la diwa ko saaga saaga woo jër a tegaat booy ñëw di wax ak nit ñi déglu saaga bi waxal ci saaga bi looy tegaate saaga bi nan lañuy saga sa ndey nga yenn wat saga bi ñew li la ma wax defon nako ko fi ñoom Mamadou Diakhaté ak ci keri fatul je mën leen yena bon nan la leen di tey yeen tok seen cott nday saga leen wax leen lu ñaaw lu ne ngeen audio ye ngay deglu leen lim may wax ay deglu leen lim may wax yena bon yena gëna bon Cheikh Ahmed Cissé yéen jigéen ñi nekk ci daayira yi ci kuréel yi yoof laayee nag tiwaawa tuubaak lepp barki sayidina muhammad dafa haram billahi xiwal kitaabi dafa xaraam barki alquranul karim dafa xaraam billahi xiwal kitaabi dafa xaraam te yéen a ngi koy def bu bëccëg moo tax wax naa ko sama mbokk laayeen yi nee leen jàng yu mu mën a doon gàmm gii di ñëw billahi xiwal kitaabi jàng leen mille sept 49 kaamil laax ma toog fii man booy Malika ak samay ismulaay azam man ñu seen ndey ba ngeen nekk nit parce que li ngeen di def dafa xam lu xaraam lu ci rax yàlla du leen nangul loolu bàyyi leen ay caaxaan diine ak folklore àndul. dina du xam du du ay xalaat bu rafet bayi len diine jigen jël tek ko ci ay xalaat yu rafet cheikh mbàkke nan ay bu ma bindee way wi jigen ñi tok muuro ko ni diko jangé né goor ñi tok ni loolu kat neex na mais bu neexé nak neex na bu neexé ci seeni xol neex ci seeni bët neex tay ci image yu jàmmalaay ndax neex na ci yalla ndax neex na ci yalla ndax neex na ci yalla bayi len ay tiaxan la wax bayi len ay tapalé dama ni tant yeen yéen dajé ngi daje jàmmalaayu maam Seydi tant que yéen a ngi daje jàmmalaayu limam Limaamu billahi wal kitaabi góor ñaak jigéen ña dajalo lu ngeen fa jang ci ay Kamil. barke alquran ñaan gu fa maam njiin mën a joxe billahi ismu ismulaayil azam boy malika nokulen bayi len leen ay caaxaanta sax ci deug deug mo ñeuk deug mo muju tay ñàkk deug googu tay diina joju ngeen rek mo japp sénégalais ba xex seen xex seen ak ak seen yelef ji parce que ku meunta taxaw sa diiné ñukoy salfaña tay di saga yalla di di di wékk yonent bi di ko përieloo di salfa ñi salfaña ak ak yelef doomu adama ngeen mëna taxaw di seetaan loolu xam ngeen ni buñu leen di def affaireu ma tay yi du ngeen ko sax dund du ngeen ko bayyi xel du ngeen ko sax bàyyi xel bàyyi leen li ngeen mel bàyyi leen seen jikko yu yi ngeen yor seen melokaan yu ñaaw yi ngeen nekk baleen ko lu yàlla xaraamal da koy xaraamal lu yàlla sib da koy sib lu yàlla bañ da ngeen koy bañ mais yéen lu yàlla bañ ngeen lii leen bëgg lu yàlla bëgg ngeen lii waxuñu ci tus sëy naa limaamu moomu ñun dañ koo xam ñun dañoo xam Seydina Limaamu mu juunoog yàlla sëñ Tuubaa mu juunoog yàlla dañ koo xam Seydi Haaji Malik bu juunoog yàlla dañ koo xam looloo waral sunu wax ji ñun xamuñu sëñ Tuubaa mu juunoog yàlla te yéen sëñ Tuubaa mi ngeen ñu jàngal daa juunoog yàlla daa jël li yàlla digle sànni teg fële teg ay digali boppam ji Malik mi ngeen ñu jàngal daa daj li yàlla bind teg fële teg njàngalem boppam maam Limaamu mi ngeen ñu indil daa li yàlla wax da koo daj teg fële dëgg bàyyi leen góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo bii ñuy jaxasoo baleen ko bàyyi leen ko looloo gën a xaram lii Ahmed Cissé wax Ahmed Cissé saagawul seen ndey saagawul seen baay li mu wax nag moo ko tey moo ko tey mais saagawul seen ndey saagawul seen baay ay caaxaan te te dox ci dëgg sax leen ci dëgg ñaan ay ay waxtaan ak ay sëñ bi yoon yónnee na ban sëriñ ñun dañoo déglu sëriñ ñun ñaata man ñaata yoon laa fi defi live ñu ku fi wax rek ñu Dakar sa ndey ñaata yoon fa ma nekkoon laa nekkaat ñii dañoo soxla seen euh, seen seen seen intervenir buñ mënta intervenir nan intervenir woon deux mille vingt et un nan lem seen génn ba mu rooñ ñu toog loolooy dëgg deux mille vingt et un ñëpp a gis délégation yi. ñi fëyi fëyi ana sëñ bas poroxaan ak garabu bam yu wex ana kat kat yi ah xalal leen yoon bëgg ngeen gaaw xëbër xëbër yi tay lan moo tax mënu leen koo def tay bàyyi leen ay ta sax ci dëgg ñun nag lii tax bu ñuy wax ñu bare bari di mer ñu bari du leen neex parce que ñun wax ji xooluñu ci lu neex doomu aadama dañuy xool li nga xam ne dañoo jàpp ni mooy dëgg yow mi jàpp ni lii may wax du dëgg kaay ni ma lii dëgg lan moo tax 2021 jekku Macky Sall di dëgg ndayam di dëgg ndayam di dëgg ndayam ba Macky Sall tiit sol ab pàncoo fu ne mu daw dugg fa tey ay ñoom bas sëñ bas poroxaan ak ku ne ñu naan ay sëñ mu taxaa yónnee lan moo tax jamono ji Macky sàll rayee ci ñun ay quatre-vingts personnes ndaw ñu di dee ci géej gi mënu leen a wax à cause de problème Ousmane Sonko yi Ludah, kan tax lan moo nyuakan ñëw leen ñu waxante mudah. lan moo tax lan moo tax bu yàggee ñun yan xalaat la yor da ngeen a ak Macky Sall bu yàggee dan nan da ngeen ñoo seetaan bu yàggee dan nan yéen lii ñu ñuy def da ngeen neex ngeen di intervenir li fi dee deewu fi amu fi kon yéen intervenir u leen woon ngir askan wi parce que bu dee askan wee taxoon ngeen di intervenir tey la askan wi gën a torox tey la askan wi gën a nekk ci ay jafe-jafe tey lañ leen gën a teg fitna ñi nekkoon ci prison yi ñi ko doon xeex sunu poñ yooyu ñu leen joxoon tey lañ leen gën a tëj ci kaso bi booba Birame Souleye daa nekk contrôle judiciaire El Malick daa nekkoon contrôle judiciaire Basirou Diomaye daa nekkoon ci kaso bi ah Falilou Keita daa nekk daa nekkoon ci kaso bi. daa nekkoon ci kaso bi boobu Diop Taïf ndax daa nekkoon ci kaso bi nekkutoon ci kaso bi booba ngañ démb Touré ndax ndax génn na dem Mali déedéet ñoo leen ñu waxante dëgg tey la askan wi gën a nekk ci ay jafe-jafe tey la Sénégalais yi gën a dund injustice que deux mille vingt et un bi ngeen bi ngeen di ñaan njekk tey jii la la asken wi gën a nekk ci ay jafe-jafe. li dee li li dee li dee ci deux mille vingt trois bi ci ay doxu ñaxtu yu am ci réew mi amul deux mille vingt trois bi nga xam ne ñetti fan la rek ngeen jug bi ñaata jour bu Maroc di daanu ngeen ni yëg ngeen ko bu Turki di tarambule ngeen ni yëg ngeen ko bu sénégalais yi dee ci géej gi di dee ci biir dëkk bi ngeen ne yëguñu leen yéen a naa féq a naa féq bàyyi leen ay caaxaan te taxaw ci dëgg dox leen ci dëgg def leen yittey askan wi def leen ko seen yitte yittey askan wi mooy ngeen fexe tey ba dund gu seer gi am ci réew mi wàññeeku ak jamono jii ban moo gënoon a yomb gasoil kañ la gënoon a yomb 2012 ak 2023 diwlin ak tonu ciment ak 2023 multiplier leen ko te moom loolu la ñëwoon ne da koy xeex dundu gu seer googu te lan moo waral dundu gu seer gi nee na bi sart yi nga xam ne tey moom lañ teg moo diis a diis a diis a diis ba yëf di metti ci askan wi ba moom bi mu fii ñëw mënuñu vingt cinq ministres laay def ci réew mi yéen ngeen ne ay kilifa diina ngeen booba yow nekk goo xalifa Seexul Ibrahima Ñas booba sëñ Muntaxa mi nekku fi xalifa Sëriñ Tuuba booba may maayi Ñas mi euh, sëñ Bay Si Mantuur euh, ne nekku fi xalifa Seydi Haaji Maalik Si duudu mii nekku fi woon waxante dëgg ñëw leen ñu waxante dëgg yéen a ngi fi woon di toog ci saal yi di xam li xew ci réew mi campagne yu 2012 yi yéen ñëpp a xam programme yi barke alxuraanul karim te billaahi wal kitaabi bu fekkee. sëñ Muntaxa Cheikh Mahi Niass Doudou Massa Yoff Thierno Madane Thierno Bassi rek yéen responsable yi ci dëkk bi bu fekkee billaahi wal kitaabi duñ leen dugal ci biir suuf dox juróom-ñaari paa malaaka yi wàcc barke arxuraan laaj leen ak jëf ji ngeen seetaan ci biir réew mi barke arxuraan yal na ma yàlla def këriñ balaa maa tëj live bi billaahi wal kitaabi do ay caaxaan dina leen ko di ngeen ko layoo ci seen biir bàmmeel seetaan gi ngeen seetaan sénégalais yi barke alxuraan di ngeen ko layoo nii ngeen complot politiciens yi di ñu rey toog seetaan ñu ci inondation bi di sàcc sunu ay milliards toog seetaan ñu ba ko yàlla du layoo ak yéen balaa live bee tëj yàlla na ma yàlla def yamb billaahi yàlla dina leen lakk yéen a bon yéen a yées yéen a alku yéen a mën a seetaan doomu aadama fi mu ne guddi guddi yonente baa ngi ñëw maa nga gis waa yoof ñu ngay defar seeni CRD ak CDD di pare nee nañ guddi gàmmu gi bàyyi laay rasuululaay waa Touba CRD yi Tiwaawan maa nga gis ñoom euh, euh, Habib si Mansour maa nga gis borom carotte bi Mansour si Jamil imbécile boobu maa nga leen gis ñu nga pare CRD bi CDD bi ku ngeen di waajal ñu ni gan guddi guddi nabi kuy nabi yonent yàlla Muhammad mi yàlla yónni ci ñun xayru xalqullaahi borom yërmaande ju yaatu ji borom xol bu sell bi borom borom tabian ju yaatu bi ki yërëmoon askan wi ki nga xam ne da daan jël ay ay saxaaba jox leen ay fas yabal leen ci ay dëkk yoo xam ne barke alxuraan gëmuñu ko gëmuñu alxuraan gëmuñu julli gëmuñu woor waaye dañu leen ñàkk ngeen a gëm lool de mais na ngeen gëm dëgg na ngeen gëm justice na ngeen gëm transparence bàyyi leen parparloo yéen nabi moomu doon xeex loolu yéen génne tey moom génne màggal ci réew moo xam ne tey yéen ñooñu di ko màggal amuñu ku ci sag njaboot nekkul Samet amul ku ci sag njaboot nekk ci bu xotaan amul ku njaboot nekkul campénal yéen a bon yéen a bon loolooy dëgg ngëj yéen bon yéen a bon dinañ ko wax yonent bi yoru doon seen xol yi de seen xol yi bu guddi gàmmu ga ñëwee nag ku dàq duul nag nga ni kii Seydina Muhammad yéefar yi tooñ nan ko di ko tooñ fekk nan ko muy julli ñu tuur ko sibireetum gileem mbàqu nag nangam nangam te bu leen booy Malika waxee dëgg ngeen ni kii bu fii ñëw ñuy dëgg ndeyam yéen lan ngeen jël ci yonente bi seen dambali baa ngi man dama leen a faale katt leen seen lëfal ndey mënu heureusement ba gënu leen maa sori ci yonent bi gënu leen maa bëgg yàlla gënu leen maa nekk ab jullit gënu leen maa bëgg dëgg moo tax mënu leen cottu ndeyam ci man sama benn ismu la asam mën naa dëgg seen ndey maa leen maa leen ëpp baatin fop barki ar alquranul karim maa leen gën a diis ci yàlla sunu borom parce que dama leen a gën a ragal yàlla man du ma am naa féq li ma gëm laay wax man duma dugg ndey ci ay suufaroon dal ndeyam di wax man du ma petoo man du ma teg ndey dil du ma ko def duma ko def laaj leen ñi jàpp ne daa am lu ma metti man duma teg ndey aw dil man duma jaay aw askan xalaatuma ko daray àdduna jaraluma ko ci di duul yéen da ngeen a am benn maqaama ci yonent yàlla Muhammad amu leen benn cër ci Seydina Limaamu amu leen benn cër ci Serigne Touba amuleen benn maqaama ci Seydi Hadji Malick da ngeen di duul maa ko wax amu leen ci benn cër. fen rek ngeen fi nekkee complot rek ngeen fi nekkee agressé askan wi rek ngeen fi nekkee di leen toroxal di dund ci ci ci ci ci inondation yi askan wi tey askan wi inondé nekk ndeyam ci ay jafe-jafe ngeen yor seen i kat ñëw ci seen buntu kër yi génn seen booloo añi di añ yéen a bon te ñoom mënuñoo taal cin ci seen biir kër yi yéen a yées ngëj yéen bon yéen mën a toroxal as gor yéena mana a aw askan hôpital yo xamni ku fa ma nga gis ben jigen ndaysan ñu ko duggal ci euh, groupe whatsapp objectif départ de maki ma nga gis ndaysan ñu nan ta doon am dom ñu koy opérer mu dee doo dégg kenn wax ci man leen du ngeen ci mëna wax parce que tiwa won la 17 bébé xëm mbay si mëntuur ñew Antoine Diome tok sa wet ga mu naan ko dëkk bi wax a wax a wax a wax ba géex ni ko nag na ngeen def enquête leeral mbir mi mais bu ngeen ko enquêté ka enquête enquête ba xam ni booy Malika mii moo yorob essence am moo jaxase courant bi tey ba hôpital bi tàkk liir yi dee na ngeen ci dugal yàllaa ko dogal yaa yées kon daa jara enquête fa muy mujjee foofu lay mujjee daa jara enquete daa jara yàqub xaalis daa jara jël ay agent secret daa jara tey eh, jël ay renseignement de généraux fu ne nga dugal leen fa yàq ab carburant te boo paree fan lay mujjee jaru ko nan ko gas suul noonu lay mujj loo loo loolo yàllaa ko dogal de lu yàlla dogal mooy lu nit dul intervenir lu mu dul def tous bàyyi leen ay caaxaan te ngeen rus yàlla bu ngeen gëmul yàlla bu dee seen maam yi ngeen gëm sax ngeen ngeen seet seen maam yi ci jëf ji ngeen di def amu leen benn kaset amu leen benn nettali bu leen benn nettali bu mag nettali ñun leen Seydina Limaamu da doon tëggil Seydina Limaamu da doon dox ci injustice Seydina Limaamu da doon seetaan ci Seydi Haaji Malick noonu Serigne Touba noonu jàngu leen ko fenn seen jikko ju bon la du seen bàyyi du kenn Mansour seen Mbaye si Mansour lii mu nekke bàyyam sëñ Mansour si balxaw mi daawu ko def daawu ko def looluy dëgg looluy dëgg sëñ Muntaxa mi lii muy def baayam sëriñ Basiiru Mbàkke daawu ko def ak njabootam xam naa leen bu baax a baax sëñ Muntaxa mi yàgg na maa fekk gab laa la wax yàgg na maa fekk gab te baaruk sëñ mu Jóob yàgg na ma maa fekk sëñ sëñ Muntaxa Mbàkke mii ku ko xamul nak man nga ko wedd mais ñama nekkalon sa dara ja ay milliers de personnes ay sétane sama vidéo dara jarul lu may fen xamna len bu baakha baax ay wajur yu baax lañu am li tax ñu melni man moma yem li tax ñu melni man ñoma yem mbacke mbacke yi lima ci xam yépp xamewuma len fenn gat dama yaro la len xamee ta fofu dëkkub diina la dëkkub alquran la waaw dëkkub diine la dëkkub alquran la bàyyi leen ay caaxaan dox leen ci dëgg te yéen ñooñu ñëpp ne ngeen ay nitu yàlla ngeen dañoo bari ci yéen ña fa daan ñëw dox ci ak mbokk bu sëñ dab bokkoon ak seen bàyyi wala bokk koog seen yaay yi wu leen fa lu leen fa indi woon ay muslaay leen fa indi woon bu leen ma tax a wax man bëgg néegu sëñ bas laa woon de taawub sëñ dab barke alquran bu leen ma tax a wax bu leen ma tax a wax man duma nit ku ñuy koqutal de amu len benn cër ci yalla la wax mako wax ndeg ñaata nit la xam fi ñu naan leen ay kilifa yo xamne man ñaata nit la xam ño xamne buñ leen massa seexal ñu taal seeni auto daw ñew gat barki Seydina Muhammad di fat buma damay kat seen ndey bu leen ma taxaw wax de bu leen ma taxaw wax la wax yàlla te gi ngeen fa doon seet si nit la ni yeen mais daf leena gëna gën jeex ci yalla suñu borom daf leena gëna bëgg ndaw ni dem leen gañ gañ gap ngeen gisoon daara ji señ bi yor tay jii ba tay ay ay ay dooma mako yor kenn fa fa waane dun baylo kenn di la toroxal lu tax ngeen ay daara ngeen yor ay doomu sëriñ ngeen ay sëtu sëriñ ngeen ay doomu soxna ngeen te fu ngeen bëggee ndomba rek genn seen dëkku maam yi lu tax du ngeen lekk lu lew teguwu leen ci dëgg bu leen ma tax wax laa wax dara mënu leen ko ci man dox leen ci dëgg seen baay yi nekkuñu woon ci lii seen maam yi nekk